ولا ياي بريزدانهم ولا ياي استاذهم ولا ولا ولا ولا لوكو مري مري مري لي حقام لوكو جوخ نا لول مي على عداله تاي فيب فو عداله نياك سلامه فو سلامه ام تخاصم تضارب تنافق اك منافق ولا يعذ بالله كون ني لك ني لا الخوان تبخي جوليت لي مي وخه ني مي لك fi muy dem ñi mu war a àndal ñi mu war a toogal ndax innal xarina ilal muxaarani yaqtadi waaye kon ginnaaw loolu maam kon julli bi war naa ba ni ko Alxuraan tabaxee moom julli bi na mel noonu ngir bu melee noonu ci lay nekk koo xam ne ku mucc lay nekk te nekk ci koo xam ne misaal yi lay nekk misaal yi nga xam ne fu ñuy joxe exemple moom la ñu waaye koo xam ne moom mudabdabina bayna dalik laa ilaa haula wala ilaa haula bu tawee mu andi fii bu subaa mu andi fii kon yow mi nga xam ne nee nga man jullit naa fexe ba man li alxuraan wax ci ay mooy wasaaya ma jëfe ko boo ko jëfee doo musa doo musa dajee ak iqaab wala ak yeddeel te jamono ji nag jamono ji loolu moo manqué ñu ko al Mustafa man fawati wa xayr loolu moo wér bëri na ñoo xam ni aaman na amanna xul lam tuminu walakin qulu aslam na tey bëri na ñoo xam li ñu wax mooy ne man gëm naa waaye xaqiqatu imaan yi ñëw ko si ñoom tama ni ñu waxee ni may jëflantee ni may joxee li may lekk li may naan loolu lu mat a bàyyi xel la ba dem fi ma ko dëjee mooy rek bari demee ci daa daa amoon beneen taalib cứ sao cầm cầm có cầm đấy